wax nga que ne xëy na votre message n'a pas été entendu wax nga aussi que ne on avait xëy na des Sénégalais qui voulaient en finir avec ce régime mais ñu bëri aussi dénoncé nañ le rôle joué par Macky Sall ci moment yu mujj yi nga xam ne moo sës rek ci élection yi loolu aussi ça a été déterminant euh, pour que Sénégalais yi gën koo euh, xëy na euh, weddi mais également jox lépp ñi fi nekk maanaam tëj ay nit xeex leen combattre leen ay année à dix jours de la présidentielle leen ñu bëri finalement pour cette coalition waaw loolu ñëpp mën nañ ko mën nañ ko dégg loolu bu dee am na ko mu war a métti ñun la war a gën a métti parce que ñun lan moo ñu boolee coalition bi ñu nekkoon dañu ne amu leen droit dem dialogue amu leen droit waxtaan alors que li ñu waxoon ñun mooy que Sénégal réew la bu nga xamante ne le pouvoir ne sa prend pas dans la rue mm-hmm. nguur gi doo ko forcer mbedd bi nguur gi da nga am élection gagné ko fii Sénégal élection dañ koy gagné dans les urnes noonu la ko Ablaye Wade noonu la ko Macky Sall te ki fiy toog bu bëggee toog toogin bu am solo dafa war gagner dans les urnes loolu la ñu waxoon. Mhm. mais dañu xas saaga ñu. ay traître ngeen ay warkat ngeen. bu ñu demee ba ñoom ñu waxtaan ba président Ousmane Sonko toog def conférence de presse ne waxtaan nañ et li ñuy njot aussi waxtaan boobu moo indi amnistie yi ba ñu bàyyi ñeneen ñi donc tey bu leen bàyyee ñoom libéré leen ñoom ñu bokk ci campagne bi ba ni ñu gañe ñun pour ñun seen une victoire sur sunu conception la démocratie parce ñun. dañu gëm ne réew mi dialogue rek moo ko mën yor la preuve ñoom bi ñu toogee ba léegi lu ñu wax concertation dialogue sur la justice am na dialogue bu war ñëw sur la sur la vie politique. Mhm. président mu ngi koy wax rek am na yeneen dialogue yu war ñëw parce que démocratie moo toll foofu. ils comprennent qu'on peut pas faire sans le dialogue. il mhm. peut parce que réew bi fu mu toll. démocratie bi nu mu ni mu ardent we c'est-à-dire avec les réseaux sociaux avec les fake news avec yu mu dem yu mu àndal yëpp tey dafa laaj. ngeen am ay compromis ak ay consensus fort ñu nag nekkuñu ci accusation on n'en veut pas à Macky comme on n'en veut pas Ousmane Sonko xam nga kañ laa doon am lu wan naqari man mhm. mooy ba ñu sëkkatalee nañu du ngeen dem dialogue ñu ñu waaf topp ci rang bi bu ngeen génnee ci rang bi on a montré que ñun dañu am courage politique dañu am ay conviction politique gëm-gëm boobu ñu amoon ba jeg suñu biir parti ne ne président Ousmane Tanor Dieng parti dafa war am candidat boobu ñu dàq ñu ñu génn Khalifa muñ trois ans de prison génn ñu kon ne gëm-gëm boobu moo ñu wan ne ñun kenn du ñu sàkkal yoon. Mhm. kenn du ñu imposer ay logique benn boussole la ñu am mooy suñu ay conviction mooy suñu gëm-gëm mooy sunu gis-gis sur la république. mais Macky Sall n'a pas joué franc jeu. même ses euh, partenaires euh, le reconnaissent. il n'a pas parce ni mu ni mu doxalee dafa dafa doy waar aussi. non seulement il n'a pas joué franc jeu vous savez tu sais Mamadou Awa euh, campagne bi il s'est passé beaucoup de choses. Mhm. yu nga xamante ne nit ñi xëy na bés dina ñëw nit ñi xam ko. wala bés dina ñëw nit ñi xam ci ay pàcc wala bés dina ñëw homme politique boobu bind ay téere nettali li xew mm-hmm. li xew kenn mënu la wax li xew ci réew mi jamono jooju moo tax la situation a été très injuste pour pour Khalifa Ababacar Sall parce que bëri na ñu ko accuser ñoo te ne ko yaa def lii wala yaa trahir te pourtant amaana xëy na du woon mais am kilifteef ak nangu waxu kilifa ak sas yu la ay kilifa sant si réew mi ci taxawaay bi nga am dugg na su loo xamante mun mënoo ko nettali kenn te réew mi bëri na lu fi xew ci élection yoo xamante ne kenn du ko nettali kon kon passe sur nous pour faire du mm-hmm. lu waay def xam nga parce que lu waay def am na loo ci séntu te mu ngi ñëwaat sunu suñu kanam mm-hmm. parce que Macky li mu def nii yëpp defu ko gratuitement daf ko def parce que il veut revenir mm-hmm. daf ko def parce que il a envie de faire un peu comme Karim mooy l'ancien camp du report pour garder son influence dans le champ politique Euh, daf ko def. parce que boo seetloo doguma la boo seetloo euh, cette euh, loi bi modifié woon un assemblée nationale bi doxalin bi là on se rend que ne président mënu ko dissoudre te matagul deux ans. Mm. donc c' pour avoir encore benn mainmise ci assemblée bi. Mm. des députés qui lui sont benn. les dernières décisions prises aussi ñu gis ne ñi dañoo ñëw dindi ko donc pour les mettre un peu mal ak ñi nga xam ne doon profité yëpp ay mbir la yoo xam ne. Mm. dafay rejoindre un dama bëgg bu fekkee assemblée am na possibilité déposer à tout moment une motion de censure le président de la république doit avoir la possibilité aussi à tout moment de dissoudre mhm. l'assemblée mais parce que Macky avait compris que quel que soit le président qui serait élu problème bi ngay am mooy assemblée bi mhm. et problème actuellement bi bi bi Sonko am te moom la laxas si coow li ñu xam ko mooy la volonté qu'ils ont de dissoudre le plus rapidement mhm. parce que lu tax parce que bu fekkee dissoudre léegi boo xaaree ba septembre nga dissoudre tu es obligé d'aller jusqu'en parce que mënoo gisul avant le marathon budgétaire. Mhm. et ñoom ils ont la pression de leurs gens qui leur demandent des postes et tout am na réforme ñu mu bëgg dugal yonte a besoin d'une majorité mais ça Macky Sall celui qui avait anticipé tout ça. et qui était en train de.